def tey nag dañ ko teg ci ndigalu conseil municipal bi ginnaaw bi ci waxtaan ñoom ngir mën a fàttaliku démb ndax gis nañ ne dëkk yi nga xam ñoo gën a développé ci àddina mooy dëkk yi gën a fonk seen cosaan fonk seen culture fonk seen sociologie Turquie rek firnde la te cosaanul Mbàkke doonul dëkk buñ gor dëkke Mbàkke daara la woon daara ji màgg ba doonul dëkk ba toll fi mu toll sëñ Baara li ñu fi dajale tey mooy xam ne nit dana am doom ne dama ko bëgg a dugal école français yóbbu ko jàngali doomam français nit si am doom ne man dama ko bëgg yóbbu daara ñaari xale yooyu yeme àq ak yelef ci dëkk kon kenn ku ci nekk lay sa àq ak sa yelef ci dëkk bi dañ la ko war a jox tàmbali nañ nag lii mooy sixième édition bi ba ren dañ ne dañuy njëkk a génn juróom-benn million def nañ daan def wante it nañ fàgg yeneen juróom million tànn fukki daar ak juróom ñu xool leen lañ bëgg bu dee ay mbaar bu dee ay toilette lu mën a doon ñu defal leen ko bu déwénee bu ñu amee lu ëpp loolu it def lu ëpp lool di ñaan yàlla léegi ni déwén fekk ñu fi kenn ku nekk man lu ëpp la nga mënoon waaw bu ñu amee doole rek dëgg yàlla def lu ëpp li téeméeri junni yoon alxuraan nag ndax damay waxtaan ak sama yenn xarit léeg-léeg ci ay modèle de réussite mooy nit ñoo xamante ne dañoo réussir seen àddina bi ñu xoolee ki gën a réussir àddinaam mooy ki fi dund ba bàyyi koo fi nit ñi di ko fàttaliku di ko roy bëgg seeni doom mel ne moom bëgg seeni njaboot mel ne moom ba bu ñuy waxtaan sax di jël exemple di ko tudd kooku mi mooy ki gën a réussir ci àddinaam bu dee ci réussite àddina yi koom yi boo xoolee mën nañ ni ñi ëpp alal ci Sénégal bu ñu dee fukk juróom-ñaar ñëpp daara lañ li ko waral sorewul ndax léeg-léeg dama koy faral di wax nee naa leen man du ma complexe ndax li yi jàng jàng naa ko ci tubaab ak ci diine dox naa di doomi mag jaar fu bari kon bu ñu bëggee réussir faa ñu dell ci cosaan dellu ci cosaan mooy suñu maam yi li ñu réussir boo xayee junni yoon ñu réussir ñu benn te la tax ñu réussir ko mi ngi fi ba léegi ndax bu dee njàngum diine muy alxuraanul karim dañuy jàng nit ki muy mokkal ba pare ñu di ko yar bu dee njàngum classique mooy bi ñuy jàng ci tubaab bi dañ lay jàngal mais deesu la yar kenn du la doon te ñaari nit nag boo amee ñaari doom ñi ay seex juddu kii nga jàngal ko ki jàngaloo ko ki nga jàngal mën naa dem ba am salaire juróomi million ki nga jàngalul munta paase lu dul fukki junne ak ñaar wala fukki junne ngir dooleem rek la mën a am want ci ñooñu ñu jàngal boo xoolee ñi ci ñi ci gën la ak mucc mooy kañ yar ndax xam-xam képp ku ko yor ak bu doon daanu toog yar saa soo jógee ci loolu daanu ci coono wax suñ ci kon loolu moo wuutale kuñ yar jàngal la ak kuñ yarta jàngaluñ la alxuraan nag képp kuñ fa jaarle ci daara daañu la jàngal daañu la yar tey nag bis bi dañ ko jagleel seen maam Serigne Saliou Diop ngir liñ ci jublu rek mooy dafa doon magum lislaam dëgg yàlla yàlla suñu borom dogal ñu gis ko sopp ko ëpp na ay fukki at ak juróom ngam saa su ma ko rombee lu ma yàkkamti yàkkamti du xam sama yàkkamti dina fa jàdd nuyu ko waxtaan ak moom te lu mu xat-xat dina ma dinaa am ci moom lu ma jële ci moom noonu ñu def ko nag ak seen bàyyi njoori jatara noonu it lañ fas yéenee mag ñu baax ñi ci dëkk bi di leen tànn di tudd bis yi ñu leen di fàttaliku ngir ñu leen ci mën a roy ñu jàpp na it teraangay alxuraan kuñ ko defar rek képp koo xam laa nga ci alxuraan rek jàppal na yow lañ ko defal kon nag ñu ñaan suñu boroom suñu boroom may ñu kàttan ba li ñu yéenee ci alxuraanul karim ci dëkk bi ak ci sëriñ yi koy seen daara yi jàngale alxuraan ñu man ko ba defal lu kawe seen jot yàlla xam ne ne bu ñu sañoon kenn ku ci nekk fa nga nekk dañ la fa fekk defaral la fa nga ne jàpp la it ba nga yokk ba yëg mm-hmm. ngir jëmmi yàlla ak alxuraan ngeen jàpp ne tamit jàpp leen ci suñu xol te it wax dëgg yàlla lii rek firnde la ndax yéene la lu amoon lu ëpp lii danañ ko def di wane daal suñu mbégte ak it suñu engagement ci lépp loo xamante ni jëm na ci daara lépp luñ ci mën dinañ ko def maa ngi wax premier adjoint ne ko dama bëggoon bu liy jàllee nga ànd ak commission bi nga xamante ñoo yore wàllu diine Oustaz Amadou Bousso bi nga xam ne liggéey bu rafet la liggéey moo ñu àndal ci commission bi pour que sëñ daara yi ñu def daara par daara recenser xale yi ñi amul kayitu jub mën a wax ki nga xamante mooy président tribunal mu organiser ay audience foraine ñu jàppale leen def leen ay këyitu juddu ba sëriñ daara bu ci nekk donc ya muy jàngal mu am seen ay kayitu juddu dañ ko ci waxandeem bu ko ci màgg ba war am carte d'identité ñu wutal carte beneen bi ci des it wax naa ko ne bu ma sañoon li nga xam moo jëm ci wàllu couverture maladie universelle daara ju ne bu ñu mënta jël dong yépp it ñu mën cee jël ab lim bu ko defee jël leen ngir man leen euh, jël en charge pour li nga xamante moo jëm ci seen wér-gu-yaram ndax léeg-léeg man lu ma rafetlu ñu jël en charge xale yi ne ci école française bu ñu feebaree te waa daara ku ci feebar dina jël en charge dañuy nekk ci école française état moo leen jëlal lépp ñii it wax dëgg yàlla ñoom ñooy liggéey di daan seen doole di jàngale kenn fayu leen ba pare di dundal xale yi moo tax nag ñu am mbégte ci ki nga xamante nii muy seen Cheikh Diop mi nga xamante nii dëgg yàlla sëñ xaali li nga def fardul kifaaya la ñépp ko defaale ndam loolu nga am ndamu sëñ daara yëpp la ndax jàngal nit ba mu génn dem ci concours ba àgg ci foofu mu ci àgg siggil na Sénégal siggil na fii mu dëkk wante it loolu du bett kenn te fi bàyyi ko cosaanu loolu mooy alxuraan kon ñi ngi sargal sëñ Cheikh di sargalit sa bokk yu tedd yi nga àndal def délégation te ñëw fii ngir mën a fekk ci bis bi ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm